ñëw teewe bés bi nga xam ni dañuy jébbal district sanitaire bu Diourbel euh, benn ay matériel boo xam ne gis ngeen ko léegi ci ak sama partenariat bu ma am ak fondation 221. fondation 221 comme niñ ko waxee nekk ay doomu Sénégal ak ay doomu Amérique yu lëkkaloo et son président Moussa nekk États-Unis décidé jàppale département de Diourbel donc ma leen di félicité bu baax di leen sant ci loolu parce que may wax rek ne. bi ma toogee gis ci média yi fondation 221 def ay action ci biir Sénégal man ma sàkku gisanteeg Moussa Niang seen président mu ñëw sama bureau ñu waxtaan ma wax li ngay def ci yeneen région yi bëgg naa ñu def ko Diourbel waxtaan bi matul waxtu ñu juboo te bi mu delloo mu taxaw ci pour yónnee matériel bii nga xam ni tey xayma nañ ko ci ñaari téeméeri million ak juróom fukk ak lu teg su tardé sax tey li ñu def nii parce que ci man la tardé te su tardé ci man parce que conteneur bi ñëw na bu yàgg mais ñu nekkoon ci ay dossier administratif moo tax mu ñëw mais loolu maa ngi leen ciy félicité bu baax mais li ma ciy gën a retenir mooy bi mu ñëw Moussa Niang ñëwee sama bureau ñu waxtaan dama ne ko dañuy waxtaan ak médecin district bu Diourbel mu wax li ñu soxla ci équipement ak ci matériel médecin district bi bind ko yónnee ma ko ma yónnee ko euh, fondation bi Moussa Niang toppatoo ko mooy bagage yi nga xam ni moom lañ gis ni tey. parce que bu ñu waxee nag don yu mel ni su bëri suy am ki koy joxe li mu am rek lay joxe waaye bii nag dañoo waxtaan en amont ñu wax ne lii lañ soxla ci jurbel ak lii ak lii ak lii ñoom ñu toppatoo loolu indi ko donc maa ngi leen di félicité bu baax di leen remercier ci loolu. beneen bi ci des mooy bu mu nuyoo madame la représentante du médecin régional nuyu aussi féliciter médecin chef de district monsieur Ndiaye. ci li nga xam ne nii def na ko ci séddale matériel bi parce que mënoon na wax ne fii la nekk ci district bi yemale matériel bi yëpp fii waaye da nga ko lawal yóbbu ko ba ci biir département yi ba poste de santé yi nekk ci dëkk bi yëpp ku ne am ci loolu nag dafa méngoo ak politique u président de la république Macky Sall bi nga xamee ne li muy tuddee capital humain jox na ko gëddam mais aussi au non de l' équité territoriale et sociale maanaam mbir yi warul yem ci dëkku taax yi dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw taax yi aussi ci lañ bokk war nañ ci am wàll loolu moo tax ma féliciter le médecin du district ndax loolu mu def pour séddalee matériel bi bi ci des rek mooy li ñu wax léegi man fas yéene naa am partenariat ak fondation 221 ci yu mel nii ak yeneen yu mel nii li ñu joxe fii nag tey mooy première action bi jàpp naa ne entretien bi saytu ko maanaam toppatoo matériel bi ba nga xam ni dina dem ci askan bi matériel bi ñu ko ñu koy jox dinañ leen mën a tracé dinañ leen mën retracé ñu xam ne matériel bi nga xam coono bi nga xam ne nit ñi defoon nañ ko ci pour indi bagage yi am na njëriñ am na jeexita dem na ci askan donc monsieur le directeur médecin maa ngi la ci woo te dina wax aussi ak fondation bi ak dans le cadre de partenariat bi ñu def ñu def un comité de suivi pour xool fu matériel bi egg ndax nit ñi ñu ngi koy jëriñoo parce que loolu moo ci moo ci am solo